Thiar ñàkk nga de. parcelle laa dëkk parcelle mooy bomb parcelle for life. oui bon parcelle 100 pour cent la Pikine 200 pour cent. parcelle du 100 1000 pour cent la nga ànd waaye. dépassé nañ 100 ñun bu yàgg 100 xam kañ la woon. bu may jëli molo muy jëlee ma seen roi bi boobu la woon 100. instant ñu ngi si 1000 1000 pour cent. dépassé nañ 100 sax ay 100 200 raw nañ ko. ñoo ngi si 1000. te boobu da koy firndeel dimanche. réseau Pape Sarr. daa génnee képp kuy mbëru pikin génnee képp kuy supporter pikin ñu ànd ak moom daal. Pape sama mag la day xaar sama grand frère la mais day xaar rakk yi aye te rakk yi bu ñu aye rek lool foon la yaa ngi fàtte lool foon bi may ànd ak Modou di jëli loolu loolu lañ fëggaat rek moo ñëw ñun ñoo aye parcelle parcelle mooy bom barki maam Rémo Seye pikin nañu xaar tuuti. li ñu yaakaar ci Franc newut ci moom. ñu waa parcelle gépp dañoo jàpp ne Franc moo dàq bëre moo ëpp doole moo dàq xeex mais bi su làmb ja mu weer Franc te waa parcelle wax nañ dëgg seen bokkal seen rakk la ñuy faral mais nit ki fi nga dëkk fa ngay safoo de booy PA lañ dëkk moo la ñuy ndamoo Franc di sokoo Franc mais bu bis ba barki nóoree ni laa la yàlla mooy maye ndam mais Franc day am ndam mais nit nag bu la neexee mun na la jox micro Franc day wax Sokh day wax loolu si làmb la combat bi dafa rëy dafa rëy moo tax ma ñëw man bàyyi naa làmb sax mais dama ñëw. combat bi dafa rëy moo tax ma ñëw. Sokh sama rakk la sama rakk la parce que dafa may tiitaroo parce que man Pikine nekkoon naa fa mais dama koy wax tuuti mu xaar ba ba si kanam tuuti rek si kanam yàlla na ko may ay yeneen ndam mais bii day xaar bii moom day xaar. dugg yaa ngi gis mafia bi nu mel gis nga Franc nu mel gis nga Franc nu mel ñun PA yàlla moo ñu may lii dañu mën solo dañu jantal dañu nice te bis ba dañuy ñëw si discipline ñëw si yar ak teggin am ndam parce que ñun violence dépassé nañu sax tax ñu yooyu sax lamb lambantu la ba daj te ñu làmb nañ ba daj Franc yàlla da koy may ndam affaire violence yooyu na booy yeew rek violence làmb dañ ko war a bàyyi xam nga lan laay war a si nit ñi nar a noot nañu jooy loolu moo gën ñuy violence làmb temps bi ni mu nar a demee loolu lañ war a xeex si pacifique ak si wax kàddu yu rafet mais làmb làmb na ko booy fonk parce que day jàppale booy yu bëri parce booy bëri am ñoo xam amuñu liggéey amuñu fu ñu yaakaar kon nañ jàppale seen bopp ba pare yaru ba pare mbëri tamit di yeete si kàddu yi rafet parce que mbëri loolu seen cat parce que mbëri sans làmb ñoom dañu war a def conférence de presse ñoom di toog di wootente di yeetante mbëri loolu lañu wax mais mbëri ñoom loolu seen cat parce que mbëri ñoom mbëri mag yi nee nañ ay corrompu pare parce que bu ba am rek seen bopp lañ fi nekkal mais loolu waratu leen mbëri dañu war a toog di waxtaan seen biir di yee jàmm si dëkk parce que mbëri ñoom la booy di top à part football làmb am kon mag yi nañ bàyyi seen loolu bu ñu amee xaalis rek aju mais nañuy yeete ñoom ñoom mun nañ toog def ay conférence de presse di wax seen supporters yi ba violence du am man soo fa mu fekk ñëpp may déglu parce que damay wax jàmm si dëkk bi ak di woote dëgg parce que man bugguma kuy toroxal nit ak kuy néewal doole nit parce que doomu aadama la yàlla gën a fonk ci doomu aadama exemple na kon ñu dañu war a fonk de suñu biir mais mbëri seen communication des ñoom xaalis rek wala ñoo tafu seen gouvernement ma nga yoon ay njaago ba yëngu na njaago si ndey njaago si baay moom njaago la eh njaago ba yëngu na ba yëngu na njaago si ndey